bismillahi irrahmani irrahim wasalaatu wasalaamu ala ashraf almursalin sayidina wa moolana muhammad ibni abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa xayri xadimihi rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri waxlul uqdata min lisaani yafqahu qawli wajcal kalaami rashidan wa murshidan wa fikrati nawir wa qalbi arshida mbokk yi maa ngi leen di yu baax di leen ziyaara di leen ndokkeel bu baax itam ci guddi gu am solo gi nga xam ne ci lañ ne te mooy guddi ganeek yónnente bi sallallahu alayhi wa sallama di guddi goo xam ni mboolem xéewal yi nu am yépp mën nañ ne ci la bàyyi ko lislaam mooy xéewal gi gën a rëy nga xam ne amul xewal gu ko ëpp te lislaam ci guddi gi ci la sababoo muy guddi gi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam xam ngeen ne itam weeru koor ak ya ca xew yépp ci ay ngëneel weer wi ci la sababoo muy weeru gàmmo moo tax suñ tubaabu Cheikh Ahmadou Bamba radiallahu anhu ardaahu weer wi la waxoon ne moo kawe ci weer moo kawe weer yëpp moo jiitu weer yépp moo leen sut ëpp leen i ngëneel te loolu li tax mu wax ko boog la ma ca jàpp mooy ne yonente bi sallallahu alayhi wasallam mooy sababu yi ci des yëpp bu yonente bi feeñu toon lislaam du am eh, ngëm yàlla ak alxuraan yooyu yëpp duñu wàcc kon yonente bi nag feeñ gi mu feeñ moo sabab yooyu yëpp moo tax Sëriñ Tuubaa daa wax ne faaqa rabiul awwali shuhura faaqa rabiul awwali shuhura mooy weeru eh, gàmmo moo fawqa moo kawe mboolem weer yépp te sabab bi mooy bi mawlidi alladi bada mashhura mooy ci ganek rasulullahi sallallahu alayhi wasallam bi nga xam ne moo tax ñu xam weer wi maanaam weer wi buñ ko xamee di ci wax ay wax rasulullahi moo tax kon Sëñ Tuubaa moo tax weer wii la jiitaloon ci weer yëpp guddi gi itam la jiitaloon ci guddi yëpp wax na feneen itam ne shahru rasulillahi bahjatu shuhur mooy weeru rasulillahi sallallahu alayhi wasallam mooy taaru bu yeneen weer yi mboolem yeneen weer yi lu ci weer am ci ay ngëneel akub taar wala ay xéewal ci weer wi la sama sababoo comme ni ma ko waxoon ci njëlbeen rek moo tax mu ne shahru rasulillahi bahjatu shuhur wa ramadaanu shahru itqin wa tuhur sëriñ bi dara wax ne weer yi ci des kenn ku ne la nga am weeru gàmmoo la ko jox loolu wax na ci lu bare bare am na xasida goo xam ne mi ngi ko mi ngi ko tënkee fa man shaa fal yuumin boo gisa lim na yeneen weer yëpp weer wu ne mu wax la ko ci la ko weeru gàmmoo defal farraxa mawlidu nabi muharrama kama lahu qaada alula walkarama mallaka mawlidu nabiyi safara busharatan xaalidatan lam tukfara foofu sax lu yéeme mooy jëmmi weeru safar doo xam ne maanaam weeru gàmm jox na ko mbégte moo xam ni du dañ mukk mbégte moom xëy na boobu mooy jamono yu suñ wax xasida gi waaye mbégte bi leer na ci nun moom te mooy mbégteem màggal Tuubaa noonu la ko sëñ bi toppee wax ne nafaa mawlidun nabii mawlidun nabi rabia al awwali maanaam guddi gi lay wax ne moo jox moo leen jox loolu lépp maanaam weer yooyu yëpp lu ci ne guddi gàmm gi moo leen defal loole loole ci kon sëriñ bi moom guddi gi guddee ma te guddi gum fonkoon la te itam diiru ak dunda musta dañ di ko màggal wax na ne axyaytu mawlidan nabi min asasi mooy atum 1882 wala 83 yéen ñuy wax 84 te mooy asasi rek mooy ba fi Maamar Anta Sali jógee rek ca déwén sa la tàmbalee gàmmu diirub Maamar Anta Sali di fi ne dafa wegoon Maamar Anta Sali mi nga xam ne moo doon kilifaam di sëriñam ba nga xam ne dawut yëngal dara waaye bi fi Mamadou Anta Sall jógee rek la tàmbali di woote gàmm diiru Mamadou Anta Sall defi ne daana gàmm waaye bi mu fi jógee nag ci la tàmbalee woote gàmm mooy ahyaytu mawlidan nabi min asasi dégg nga boobee itam la tàmbali at mu ne mu sasoo di ci def di ci def ak xasida goo xam ni da koy màggale guddi gi gis ngeen xasaayit yi nga xam ne moom la def ci màggale ko guddi gàmm yu bare bare la kon guddi gi noonu la demee muy guddi gu màgg goo xam ni jullit ñëpp dañ koy màggal daanaka ñi ëpp ci jullit ñi bokk dañ koy màggal ngir bëgge ci ak sant ci yàlla mi nga xam ne moo wàccee rasulullah sallallahu alayhi wasallam mboolem yéen def yëpp ci ay xéewal ak i bernde liñ ci jublu mooy lan mooy sant yàlla ci xéewal gi nu xéewalee rasulullah sallallahu alayhi wasallam wàccee ko ci bis bi ak ci guddi gi loolu loolu lañ koy santee kon loolu mooy sababu gàdd gàmmu bu defee itam yi ci nekk ci ay xéwal bari na lool am na ci loo xam ni mënees na koo jànge ci dund yonente bi sallallahu alayhi wasallam ak ci waxam mënees na see jël misaal rek soxna si ñuy wax suwoy Suwayba Suwayba jaam la bu jigéen boo xam ni ki ñuy wax Abu Lahab moo ko moomoon Abu Lahab nag dafa am bis ba moom yi ñëw bégal ko sooy ba bokk na ci ñi nàmpal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moom dafa fekke yonente bi ba muy gane ba mu feeñee rek mu daw wax ko sangam ba muy abu lahab ne ko kat sa mbokk moo abdullahi am na am na am na am soxnaam sa am na gan am na do am na gone abu lahab bég ca ba ba goreel ko ne ko yow léegi doonatoo jaam gor nga ba mu ko gorelee nag loolu tax na abu lahab bi mu fi jógee ba ca déwén sa rek mbokkam mi ñuy wax abbas di mbokkam di bàyyi bu ndaw yonente bi alei salatu salaam gént ko gis ko abu lahab ne ko man de ci coono laa waaye altine bu ne danañ ma woyofalal mbugal mi am na riwaaya Buxaari dafa wax ne danañ ma jox ci sama loxo sii nii tuuti ndox ma naan ko altine bu ne la tax ñi di ma defal loolu mooy goreel ga ma goreeloon suway ba ci ba ma waxee ne rasulullah sallallahu alayhi wasallam judd na gane na gane na àdduna loolu nag ah bu mag bi ñuy wax ibnu nasiri diini dimashqi shamsuddin ibnu nasiri diin dimashqi def na téere bu am solo ci gàmm tudde ko mawridu saadi fi mawlidil haadi dafa wax ne ida kaana hada kaafiran jaa dammuhu wa tabbat yadaahu fi ljahimi muxallada ata annahu fi yowmi lisnayni daa'iman yuxaffafu anhu lissuruuri bi ahmada fama dannu bilabdi alladi tuula umrihi bi ahmada masrurun wa maata muwaxida ginnaaw kee ab yéefar la boo xam ni yàlla ci moom daa wàcce ay aay yoo xam da ko ŋàññi ci alxuraan mooy tabbat yada abi lahabin wa tabba ma axna anhu maaluhu wa ma kasab sees laa naaran zaata lahab yàlla wàccee alxuraan ŋàññi ko wax ne faw mu dugg sawar te teewul altine bu ne ñu woyofalal ko mbugal mi ngir ne daa béggoon ci ganeek rasulullah sallallahu ba mu feeñee àdduna kon jullit ñi nga xam ne ñoom ñoom weddiwuñ yàlla dégg nga di ay jullit yu gëm yàlla te bëgg loolu yonte bi sallallahu alayhi wasallam itam at mu ne ñuy bëgg ci moom ak ci bëgg ci feeñam gi ñooñu kon ku ne xam na ne yàlla da leen di dàqal mbugal ma ci boppam amul sikk da leen di dindil mbugal moom nga xam ne du leen mbugal mukk moom loolu nag boo seetloo Serigne Touba leeral nañ ci xeeti mbégte yooyu nga xam ne ak yi nga xam ne moom la kii gàmmuy am lu bare bare bare ci jasbul xulóob wax na ca yu bare bare bare bare wax na ne falaa yuxaasabu gada fa man yuazim mawlida nabiyina babil huda falaa yuxaasabu gadan mooy ki koy màggal ak di ko fonk moom guddi gii nii kenn du xisaab kenn du ko xisaab ëllëg mooy kenn du lijjanti mbiram dégg nga wax na ci yu bare bare fakka shahidin shahida badran mooy dafay mel ne ku fekke woon xare badar bokkoon ci ñi àndoon ak yonente bi ba dee ca jihaad jooje wax na ne itam kaman xadar yawma xunaynin wa sabar wa yawma badrin da ngay fekke itam ku eh, mel ne ku fekke xeexub xunayni àndoon ak yonente bi ba eh, eh, maanaam bokkoon ca ña taxawoon ca ca itam ndax am na ñu ñu ñu ñu ñu ñu dawoon mooy ña doon doog a te xamaguñu woon mbir mi te seen pas-pas dëgërul xëy waaye ña ca jiitu woon moom ñoom dawuñu dañoo taxawoon ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam sëñ bi wax nag ne boo te fonk ko dundal ko da ngay mel ne ña taxawoon ca bisu Xunayn wax na itam ne xad zafira bi maa yudimul bushara lépp wax na ko ci mooy danga ci amee loo xam ne day saxal say say mbégte mooy toujours xéewal rek ngay am ak lu lay bégal bu fekkee ne fonk nga guddi gi waaye nag dangay wax ne foofu mat naa tey mooy fa man yuazim yuazim feelu mudaari la mooy ku sax ci di ko def wax ñu nga def ko wenn yoon rek bàyyi ku sax ci di màggal guddi gi at mu ne nga di ci béggee noonu loolu yi nga ci amee walaa yu yulaaqi darara comme ni mu ko waxee fa xaba a ahlil himam yi tam wax na ko ci mooy mbooleem yiw yi nga xam ne moom la gaa borom yitte yu kawe yi amoon di nga ko ci amee mi yaxmi ixyaau mawlidil bashir yaxmil iyaala wa duyur fii shifaawun li sudur li kulli haadin yentami loolu wax na ko ci kon guddi gi noonu la demee muy guddi gu màgg gu rëy goo xam ne nii mën nañ ne mooy nday guddi yëpp mooy guddi gi féete kaw guddi yépp yonente bi sallallahu alayhi wa moo ko njëkk a màggal moo ko njëkk a eh, dundal ci saxiixul buxaari ak muslim yépp boo demee di nga fekk xadis bi abu qataadata nett li wax ne yonent bi sallallahu dañ ko gis muy woor bis bu altine ñu laaj ko lu tax ngay woor bis boobu mooy leen fii fiihi walittu mooy ci laa feeñ ci laa gane ci laa gane àdduna kon ginnaaw moom ne mu ko doon màggale moom yonent bi mooy bis altine bu ne mu woor ko noonu la ko doon def noonu la ko doon defee <coughs> te itam bi xam ngeen ne mooy yërmande yàlla ci kaw suuf mooy jëmmal yërmande yàlla yàlla da ko wax ci alxuraan ne ko wa ma arsalnaaka illa rahmatan lil aalamina yàlla da ko wax ne ko yow li tax ma yabal la ma yónni la mooy yërëm aalamu aalamu moom mbindeef yépp du nit ñi kese jinne yeeg malayka yeeg garab yeeg ndax ba mu waxee suñu borom wax ci njëlbeenu alxuraan ne alhamdulilahi rabbil alamina alamina ju njëkk jooju nga xam ne yàllaa ko moom nag mooy lépp lu yàlla moom rek yonente bi yërmande la ci ñoom ma arsalnaaka illaa lil alamina yàlla nag bi ko yónnee wax ne mooy yërmandeem ci kaw suuf moo koy jëmmal loolu tax na te suñu borom wax na ci alxuraan ne fa bi qul bi fadlillahi wa bi rahmati fa bi dalika falyafrahu bu ngeen dee bëggee wala ngeen di feete dara na doon yërmande yàlla na tax ngeen ko feete te loolu mooy rasulullah sallallahu alayhi kon bis mu feeñee loolu moo tax jullit ñëpp maase ci di ko di ko dundal yonent bi sallallahu alayhi jàngal ni bis bi nga amee ak xéewal bis boobu sañ nga saa yu dikkee nga nga màggal ko dundal ko bëgg ca feete ko te loolu fi ko jàngalee mooy xaddis bi nekk ci Buxaari ak muslim yëpp ak mu nga xam ne benn kenn benn xadis féetu gënu ko wér te mooy ba mu ñëwee Madina fekk yahud ya di di woor bisub Ashura mooy bisub fukki fukki fari tam xarit mu laaj leen lu tax ngeen koy woor ñu ne ko ci la yàlla <clears throat> ci la yàlla labale woon Firawna musaloon ca Muusa xéwal googee ko yàlla defaloon moom sunu yonante boobee nag moo tax ñu koy woor yonente bi ne leen nahnu awla bikum min Muusa ndax nu awlaa bi Moussa minkum nun noo leen gën a yay ci Moussa maa noo leen ko gën a jege noo leen ca gën a yay moo tax xéewal gu ko yàlla defaloon noo leen ko war a gën a sant nun fa saamahu wa amara bi siyaamihi mu daal di koy woor moom yonente bi sallallahu alayhi wasallam digal nañ ñëpp jullit ñëpp saa yu bis bi ñëwatee dee leen ko woor de leen ko woor te mooy bisu ashura waaw kon loolu tegtal la ci ne bis bi nga amee ak xéewal sañ nga koy sañ nga koy màggal at mu dañ nga koy màggal at mu ne kon yónnente bi sax bi mu demee ba màgg maa ngi jégalu ci baat boobu waaye bu demee ba yàlla yónni ko dafa rey am xar defaat li wax ngénte mu defaat ko boobu mooy tuddaat boobu maanaam defaat tuddaatul boobu waaye dafa def li wax ngénte ah moom la defaat boobu ci rey am xar loolu it ba tey euh, Jalaaluddin Suyuuti dafa wax ne loolu rek mooy ci slayam ci gàmmu kon loolu rek lan lan moo tax ñuy ñuy màggal bis yi di loo xam ni itam cëslaay yooyu dañ koy wax rek ngir xëy na ne jamonoom léegi dafa yaatu te mbir mi gëndaloo xale bu nekk fii day nekk ci Darou Moukhty di diglu ay internet yooyu bay diglu wax koo xam ni mën na nekk biir Arabie Saoudite kooka mën a jeexital ci moom bu ko dee moom mën na koo toppi te fekk du xam ñàkk xam li ne rek moo tax waaye bu de loolu mooy fuqahaw yi nit ñi nga xam ne ñoo gëstu lislaam fuqahaw yi ñoom dañu jàpp ne dañ koo sopp waaye nun moom ak ñi nga xam ne ñooy tasawuf ahlu tasawuf ak nit yàlla yi ñoom dañu jàpp ne dafa war rawatina nun murid Sëñ Tuubaa dafa wax ne ta'zimuhu bi sunnati yaxuud naa lil jannati nu mu ko waxee sax yan yan xatimu ala dawi taqaddumi ah yan xatimu ala dawi taqaddumi mooy dafa war woote gàmmu maanaam njiit lu ne dafa war ci yow nga woor ñëpp ñu ñëw gàmmu si fa yow yan xatimu ala zawi taqaddumi lu jiitu mbir moom faman mawliduhu muazzamu mubarakun muxtaramu aywa ya taazimuhu yan xatimu ala zawi taqaddumi mi nga kon sëñ Tuubaa moom li mu jàpp mooy bis moom màggal ko dafa war moom farata la farata la ci nun moom léegi nag loolu mooy nit yàlla yi nga xam ne ñoom dañoo gis ne bég ngir yonente bi farata la loolu lay teg bég ci feeñu yonente bi loolu farata la ci jullit bu ki nga xam ne bisu yonente bi bu ñëwee du ci bég du wane lenn mbégte nga xam ne day mel lu ci amu naqar sax nag kooku xam nga du jullit kooku yéefar la gën a jege yéefar yi ñooy ñooy mer ci juddu rasulullah sallallahu waaye nun jullit ñi dañ ci bég dégg loolu yaakaar naa waxtaan nañ ko ba tàyyi dama ko doon jiital rek ngir euh, mu nekk soññee ci ñu xam ne lii ñu def nii lu am solo mooy jaamu yàlla gu rëy ndax yàlla suñu yonente bi dafa wax ci xadis bi wax ne xëy na am nay wax waaye mën sa cee tegtalu ma ni wax ne ala inna lillahi fi ayaami dahrikum nafaxaat mooy suñu borom dafa am bis yoo xam ni maanaam ay ay ca maanaam da ci mooy mooy bis yoo xam ni boo defee benn dañ la ci fay masalan junni jëm kaw xam nga képp man jaa bil xasanati falahu asru amsaalihaa la wax mooy boo defee benn baax fukk lañ la ci fay daa am bis yoo xam ne boo defee benn junni lañ la fay jëm kaw waaw jamono yoo xam ne daa gën a barkeel gën a bari ay leer nga ne boo ci defee da gaaw a am fay bis yooyu nag dafa am ay guddi ak i jamono yoo xam ne loolu da ci am gis nga waxtu wi mujj ci ci ci guddi gi waxtu wu ne suñu borom loolu la ci wax mooy njël suñu borom dafa wax ne moom boo moom mooy wàccal boobam moom tàllal loxoom jaam yi ne leen ku bëgg ma jéggal ko na wax rek jéggal mu ma jéggal la ku bëgg wërsëg na toog fii rek ne ma may ma nangam ma may la ko la koy woote nee na ba njël jot ba fajar jot kon guddi nag guddi gàmm ci loolu la bokk Sëñ Tuubaa sax àgg na ci wax ne li mawlidil muxtaari sirrun yuktamu is sawnuhu anil wara yan xatimu maanaam guddi guddi euh, feeñu yonte bi mu guddi gàmmu dafa am secret boo xam ni moom des koy nëbb moom nga xam ne ñëpp waruñu ko xam ci sawnu foo anil war a yan xatimu maanaam dañ ko war a nëbb nit ñi sax ku ko yàlla xamal sax sañoo ko wax mm-hmm. waaw loolu suñ ko wax na ko kon guddi la goo xam ni des koy màggal di ko fonk niñ koy màggale nag wala boog na ko suñ ko daa màggale mm-hmm. mooy jàng alquran la ci daa jiital buñ jàngee alxuraan boole koog di def ay salaatu al nabi yu bare bare bare bare bëri salaatu al bi yooyu mooy xasida yi mu def ci lañ daa jàng rek waaye nag ñi daa jàng ne ñiy yëkkati ñoom ci bis bi sëñ bi lim leen daa yëkkatiloo mooy jës bu ak mawaahibu ak muqaddamaat ak barzan ji bi nga xam ne moom day nettali dund yonente bi alayhi salaam ak ku feeñam mooy ni ñu ko def fii ci Daaru Muxti rek nga ne dañuy yëkkati fukki bayit ak ñaari jës bu fukki bayit ak ñaari muqaddimaat yaakaar naa muqaddimaat bu dee fii nag muqaddimaat dañuy jiital teg ci fukki bayit ak ñaari jës bu teg ci fukki bayit ak ñaari euh, mawaahibu kii jàng bërsënd yi jàng ab ab ab dog mooy ab faslu ci ci bërsënd yi ba àgg ci julli yooyu mu nga xam ne moom lay jeexale fasul yëpp mooy afirillahumma qabrahul karim bi xatfin sabiyin min salaati wa taslim ak julli la gaa yëpp waxandoo ko yaakaar naa ay yoon mu teg ci allahumma salli wa sallim wa barik alayhi loolu lay jeexale moom barsan ji loolu lay jeexale fusóor yi loolu nag moom buñ koy jàng ba àgg foofu ñëpp dañ koy baamu ñu demaat nag ci ci ci jës bu bi ak muwaahibu ak kii noonu moom sëñ bi noonu la ko daa jàngaloo moom te penc ba waaye teewut danaa dégle ne nañ ci baril salaatu ala nabi mooy julli ci yonte bi salaatu salaam ci yonte bi nag lu mel ne nooru daaree ni julli ci yonte bi la lu mel ne jaalibatul maraaxib bi suñ bi doon jàng jëli ci yonte bi la lu mel ne mawaahib uh, mafatixul bishri jëli ci yonte bi la xidma moom moom yooyu moom jëli ci yonte bi moom moom bu dara rafet la moom waaw xidma maanaam juróom benn téeméeri julleñ nanga ma nga ci waaw ëpp na ko sax yaakaar naa ak lu mel ne fatxul gafaar ak si julli si ak xidma maanaam day ñaar bu way ak bi nga xam ne wesar la yooyu yëpp ay julli ci yonte bi la ak yeneen ak yeneen am na sax diwaan boo xam ne diwaanu salawaat dañ ko yooyu nag guddi gi bépp murit boo xam ne bëgg na ko màggal na fexe ba moom yow nga baril ci julli ci yonte bi rek mm-hmm. nee nañu nga gis ko naan la sàngam lañ ci jàngam nangam waaye yow ba julli ci yonte mooy mooy jubluwaay mm-hmm. yiñ ciy digg naa bu kii am ko sax yooyu bu mu la yitteel yow fexel ba guddi gi moom na na fees dell ci ay julli ci yonte bi alayhi salaatu wassalaam am na nit yàlla yu bare bare yoo xam ni guddi gi saa yu ñëwee danañ jëlee ci salaatu yoo xam ne balaa njëla wala fajar yàlla danañ ci taw feexal ñu gis sax yonente bi alei salatu wasalaam am na ñoo xam ne bu ñu tëddee nelaw ci lañ koy génn ak yeneen ñeneen ak ñeneen waaye nun nag li nu tee tënkalu ci bare bari mooy li ñu def li ci bari dañuy seet lañ ci fayee maanaam ay intérêt moom la ñuy doxal suñu borom daal suñu borom kenn du ko jaamu ci kaw intérêt ak i calcul mhm. lii bu ma ko defee li ma ci am mhm. yooyu moo nu tënk mhm. yow ci jéem am dara defal yàlla rek a tax dégg nga loolu mooy moom mooy mooy mooy mooy doxee bu ko defee nag ci biir suñu màggal gi itam biig bi nu bi nu demee fee ca bi ci xam nga Daaru Muxti itam nii ñu koy màggale noonu la ko sëñ bi daa diglee te mooy dañ koy gàttandu buñ ne suba la ak ak ak ak gunge ko itam bu ñu màgg buñ gàmmu ba suba bu ko dee altine bu ni itam ñu def ko noonu la wàgg ma Muxti def te loolu sëñ bi ko digaloon <coughs> bu ñuy jàng barsan ji bi nag daa mel ne bu ñu àggee ci fi yonent bi feeñee ñëpp dañu maase jug taxaw mooy lañu def dem fee biñ biñ demee ci guddi gi fee fii nag moom dañuy gis ñoo xam ne jug di yéla boog ñii di fecc ak te fecc yooyu bokk ci fecc ak tëgg moom yooyu bokk tëgg màggal yooyu caaxaan yoo xam ni bokkul sax ceeg murid wax dëgg yàlla man loolu laa jàpp dëkk bii ñu ne muy muy daarul moxti moom borom daaru dafa tànnoon jëmm joo xam ne si wax na ko ci kase tamit jëmm góor gu sant Jóob boo xam ne dana koon woon foo dégg fitim bi bi bi bi jigéen ñi def mm-hmm. te mooy bu ñuy dëbb ma rythme bi ñu koy booleel foo ko dégg demal nga aaye ko borom daaru génn na fii ci dëkk bi ay nit ñoo xam ne da leen boole sëñ Moxtaar Sàmb ñu dem ba ca buntu dëkk ba ñu dem mu dàqale ngir yu demaloon rek leen na def waaye léegi yooyu yëpp dugg si na fi tey gis nga gàmm gi mhm. dañuy tëgg ko fecc rek mhm, mhm, yooyu caaxaan la képp koo xam ne bëgg nga sëg murit ñoŋ bu la dara yóbbu ci yooyu waaw bu ko na sépp doon defit wala ñu li ci ay xisaaka yëfit yow bul ca dugg suñ tubaabam lépp leeral na ko te dara lu lëndëm amatu ci waaye nag yu ci bari nag cosaan li ci ci ci ci ci diine lay bokk wala ci sëñ ba lay bàyyi ko masal wala ci jamonoom lu mel ne tey bu ñuy gàmm comme ni ma ko waxee ni ba bu ñuy net li barsan bi bay nett li ci fi yonte bi gane àdduna xam nga foofu dañuy jug taxaw màggal yonte bi sallallahu alayhi wasallam jug googu nag jug googu nag moom man li ma ko gën a jàpp mooy ci jamono sëñ bala amoon la tàmbaloon liñ jublu mooy maanaam bu ñu nett li njëkk gane gi dañuy net li xam nga ba tàmbali fi mu fi mu ganee fi mu ñu nee gane na rek bu ñu agsee ci gane gi rek ci la ñuy ju googu ne day wane màggal yonte bi sallallahu alayhi wasallam lañ jublu rek li ma ko waxee fi at yu bëree bëri mooy day mel ne tey bu ñu lewoon yonte baa ngi ñëw nii rek nga gaaw jub ngir ngir ngir ngir ngir ngir loolu rek lay firnde waaye amut yi ci de yi boole nag yële bu beeg yooyu bokk ci moom mhm. loolu nag damaa gis fu faqih bu mag bi ñuy wax taqiyu diin nga xam ne moo doon qaadil qudaat maanaam mujtahid la ci fiqhu shafii mhm. ba demee ci tabaqaatu shafiiya da nga gis taqiyu diin subki dégg <coughs> nga xam ne moom mooy bàyyi subki mu ndaw mi ñu xam subki ñaar la bàyyi ba nag taqiyu diin ah, ak subki moo doon qaadil qudaat nee na ca jaamiul umawi ca saam ca dimasq fi na ni siri dafa dañ fa mas nee na di di di di di di def jataayu mawlid rek boo xam dañ ci doon tagg yoon bi sallallahu alayhi wa waa ji di jàng xasidatu ak ima ak sarsari boobu bi tàmbalee xalilun li madxil mustapha al xattu bi dahab xalilun li madxil mustapha al xattu bi dahab ala fiddatin min xatti axsani man katab ana xasida imam sarsari boobu la doon jàng ba àgg ci bi ñu àggee ci wa an tanhada al ashraafu inda samaa'ihi qiyaaman sufuufan aw jusiyan ala rukab ala rukab bu àggee ci di wax ne xam nga xasida gi fa mu daaw ne mooy xalilun li madaxil mustafa al xattu bi zahab ala fiddatin min xatti axsani axsani man katab mooy tagg yonente bi dégg nga jë bind te bind ko daayi daayi or daayi wurus loolu néew na ci néew na ci xaqam xaqam dëgg-dëgg la loolu loolu loolu sax néew na ci bu ñu amoon lu gën a fort or loola ñu def ko daa bind ko ko lool ci la xëy mu xaw a yelloon teg dégg nga am tagg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu àggee nag ci biir di wax ne ba te yey na ci itam bu ñu tagg yonente bi ashraf yëpp jug taxaw ngir màggal rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa an tanhada al ashrafu inda samaihi qiyaman sufufan aw jusiyan ala rukab bu waxee xeloo rek faq yu din coow moo njëkk a jóg te kooku faq yi la boo xam ne delluwaay la ci ngirul saaf yi bu ñëpp xam faq yi duna sub dafa jug taxaw moo waa jàkk ñëpp maa si jug taxaw moo tax fi ne boo seetee sawaafin yëpp saafin yi ñoom ñëpp daanaka ci na bi de loolu dañ ko bokk ci li xam dañ ñeneen sax dañu wax nañ ko sopp ñeneen ñi moom dafa dagan rek waaye mooy liin def nga xam ne tey moom dara moom lu am ci silaay la <coughs> gis nga Saad ibnu Muaz keroog ba mu ñëwee ci yaakaar na ci yonente bi wax ne quumu li sayyidikum maanaam jóg leen taxaw ngir ngir ngir seen sang bi Saad ibn Muaaz kon yooyu noonu jug yooyu cosaan li ci ci mbir mi la bokk te boo xamee maanaam mi rek xam ni tax ñu koy def day day day am solo bu ko defee nag ah guddi gii moom noonu rek ngeen ngeen ko xamee guddi na Nabi la li ma ci waaja doon xëy na bëriwul lool waaye nu gën a dundal rek bëgg yonente bi fàttaliku itam ci ni ko sëñ bi waxee ta'zimuhu bi sunnati mooy di ko màggal te teg ko ci lépp lu lu dëppoog sunna te mooy jàngal quran ak salaatu an nabi ak xeeti bernde yi ñu ciy def ak fàttaliku yonente bi sallallahu alayhi wa sallam akuk dundam yonente bi sallallahu alayhi wa da doon jëmm joo xam ni jëmm ji yàlla teral la di leeru kese nga xam ne maanaam leeru kese la sëy sëñ Tuubaa boo gisee ba ba tey ba maanaam ci biir xasee dañuy gis ba tey mu tudd ak an nuur sayyidina nuuri rasulillahi maanaam jëm yi leeru kese la moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo tax bu daa dox bu daa dox weñ yi duñ dal ci kawam alayhi salaatu salaam Sëñ Tuubaa nag moom waxtaan nañ ba tàyyi ne bu dee rasulullah sallallahu moom dafa jàppoon ne seq ko kenn dafa jàppoon ni bëgg yoonte bi farata la loolu Sëñ Tuubaa daa wax bëgg yonente bi farata la wax na ne yaa man lahul amru kun wax mi nii abadan wasalli dëban ala man xubbuhu furida maanaam bëgg yonente bi sëñ Tuubaa daa jàppoon ne kooku farata la ci jaam ñëpp ndax lépp luñ am rek yonente benn ko may ci dara jaam lañ ko amee maanaam am gi nu am sàkk gi nu yàlla sàkk loolu ci barke yonente bi lañ ko amee ndax moo tax nu sàkk na loolu sëñ Tuubaa wax na ko ba tey kon moom kenn ku ne ci noonu it mu fexe ba fas yéene dundal bëgg yonente bi sallallahu alayhi ci xolam bëgg yonente bi mooy lii maye ngëm yonente bi sallallahu alayhi wasallam dara wax ne wallahi laa yu'min dafa giñ ci yàlla walladi nafsi bi yadihi lan yu'mina ahadukum wala laa yu'minu ahadukum xatta akuna ahaba ilayhi min walidihi wa waladihi wa naasi ajmain dafa giñ ci yàlla ne balaa kenn am ngëm gu dëgër ci xolam daa bëgg daa bëgg rasulullah sallallahu alayhi maanaam bëgg googu mooy maye dëgg-dëgg ngëm moo tax sëriñ tubaa nekkoon ci dayo bëgg Rasulullah sallallahu alayhi wasallam moom dinañ wax lu bare bare moo mooy ki gën a bëgg Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ci leen xam ndax li ko yonent bi jaral gisee gisaguñ kum ko jaral sëriñ Tuubaa wax ne man yàlla jox na ma loo xam ni soxlaatuma leneen ndax ku yàlla jox lu doy danga koy doyloo te li ma yàlla jox mooy bëgg rasulullah sallallahu alayhi wasallam ganimtu xubbal mustafa wa aktafi bi daak fal muta kafaafan yaktafi yàlla jox na ma tawféex yi ma bëgg rasulullah sallallahu alayhi wasallam te loolu ku ko am amut leneen lu ko kawe ba tax na ku yàlla jox lu doy da ngay da ngay doylu yooyu wax na ci lu bare bare bare bari saxaaba yi itam noonu lañ meloon ci yonte bi sallallahu alayhi gis nañ Bilaal ibnu Rabaax di ko jege yonente bi sallallahu alayhi wa sallam keroog bi yonente bi génne àdduna ca la tuxoo Madina moom nangootu la nodd Seydina Abubakar da ko wax noddal mu ne ko man daal mënatuma nodd ndax boobu danaa def bu noddee ba ne ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah bu waxee rasulullah rek day jooy du mën a àggale nodd bi jooy jooy yu metti jàkka ji itam ñoom it ñëpp tàmbalee jooy Seydina Aboubacar nga xam ne moom moo gën a woyof ak xol ñëpp moom it tàmbalee jooy jooy Seydina Aboubacar ko amoon ay teggin la te te te maanaam ginnaaw yonte bi min bari yonte bi xam nga ñetti escalier waaye ñetteel ba mosu caa àgg ñaar bi ñaareel bi rek lay taxaw du fa àgg waaye bu waxee moom it ba tudd yonte bi day jooy jooy yu metti waa jàkka jëpp jooy dëkk kër ya ko dégg itam xam na yonte ba lañ tudd lañ fàttaliku ñoom it ñu tàmbali di jooy waaye mujj dëkk bépp jooy wax nañ ne yonte bi doo ko jóge ci Madina noonu la demee Seydina Bilaal mi nag moom dafa mujj tuxoo Madina dem <clears throat> saam saam xam ngeen ne fa la ba mu fa nekkee nag ab diir benn bis dafa gént gis yonte bi sallallahu alayhi wa sallam yonte bi ne ko yaa Bilaal ma haadihi l maanaam géej gi nga fi géej gi nga ma gëj seet si lu ko lu lu sabab bi lu tax nga nga nga gëj fi wax na ne ci guddi gi rek la jóg dégg nga takk am mbaam mbaam la amoon ñoom saxaaba yi amuñu woon dara ba nañ fi jógee loolu lañ doon dunde te yonte bi ci lo te yonte la bàyyi ko loolu laal lijjanti ba ñëw ci guddi gi la takk mbaamam diggante ba ñëw Madina siyaar si waaye bi mu fi waaj a jógee rek daa bëgg a misaal soxnaam wax nañ ne dafa nekk ci wetam di jooy jooy yu mett ci am lu ko njàqare xam ne bi daal day faatu dégg nga di wax naan euh, waa xus naa mooy njàqare li fuñ ko waxee métti bi yeeg ay sama li may dal bilaal moom da doon xam ne ko ximmaliku jege ximmaliku ne ko bàyyi li ngay wax da ngay wax waa saraba maanaam mbégte mi mbégte mu mu rëy mii fan lañ koy waxee ngay wax ndax xadan alqal ahibata muhammadan wa sahbahu maanaam suba dama war a dajajeeg sama gaaño muhammad ak gaaño nga naa ay ay njàqare loolu koy xewal la xewal la foofu nag li ma fi bëgg misaal mooy bëgg dëgg-dëgg bu dëgëree dee du taxaw sa kanam xam nañu gis koo xam ne day woote fii bëgg sëñ bi nanga waaye dee moom waxu ci dara te sëñ bi mënoo gisee ak moom te faatuwoo mhm. sax mën leen mënoo ko am te faatuwoo mhm. li yaa ngi ragal rek yow sa bëgg moom yow nga xam ne des na dara mhm. da ngay wane ba dee nag moom doonatul baaraas sa diggante ak sëñ ba nga xam ne moom dem ci sëñ bi moo la gën gënal des fii yow ba sa bëgg ngi màgg Bilaal ibnu Rabax foofu la nekkoon mooy gadan alxal ahabari da ko ne ko waa tara baax ngay wax gis nañ keneen ku ñuy wax xaalid ibnu maadaan moom it doom ji abda dafa wax ne bi fi yonent bi jógee ginnaaw bi dafa mujj guddi gune guddi gune bala moo nelaw dañ koy dégg mu wax baat yoo xam ne bi seet la koy wax moom muy wax naan nga xam ne day tudd bu day tudd moom guddi gu ne day day dañ koy dégg muy tudd yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak saxaaba yi kenn par kenn di wax muhammad sallallahu alayhi wa sallam abu bakrin siddiq omar ibnul xataab noonu la koy topp tudde ña bilaa dum dara di leen tudd seen tur ñëpp jeex mu teg te ne hum asli wa fasli ñooñu de ñooy samay cosaan ci ñoom laa bàyyi ko te ñoom it ñooy samay bànqaas itam maanaam maanaam ca seen biir laa ne daal ñoo ma féete kaw féete ma suuf wa ilayhim yaxinnu qalbi sama xolit ñoom kese kese ñoo ci ne ñoom rek laa sopp taala shawqi ilayhim dama leen a namm nag ba ma leen gëjee gis daa yàgg fa ajjil rabbi qabdi ilayka suñu borom yàlla nag ma yóbbu nag ca gaaño yi maa ngi fi yàgg yàgg naa fi xaalid ibnu maadaan xataa yaxlibahu naw loolu lay wax ba tere muy nelaw waaw saxaaba yi ginnaaw yonente bi sallallahu ci loolu lañ nekkoon gis nañ saxaaba yoo xam ni ah <coughs> seeni baay ci boom xeex nañ ak ñoom ak seeni mbokk ngir rasulullah sallallahu alayhi wasallam ak ngir bëgg yonente bi sallallahu alayhi wasallam yàlla yàlla defal tawféex yi nu bëgg rasul lay salaam te jox ko wàccuwaay bi nga xam ne moom la ko yàlla jox ku yàlla fonk la ku yàlla fonk la gis ngeen ci alxuraan suñu borom wax ne inna allaha wa malaikatahu yusalluuna ala nabi loolu suñu wax wax ju rëy ngi noonu loo xam duñ ko seetlu mooy yàlla ak malaayka yëpp dañuy maase di julli ci yonent bi salaam salaam ja maanaam lu ñu lu ñu tudde jaamu yàlla goo xam ne yàlla nga koy def moom xamuñu ko geneen yàlla julli yi ñu def xam nga du ko julli moom la julli moom rek la ñuy julli xam bu ñuy julli moom yàlla tax ñuy julli moom la ñuy jaamu waaye geneen jaamu yàlla goo xam ne yàlla nga koy def amul waaye julli ci yonte moom yàlla da koy da koy def inna allaha wa malaikatahu yusalluuna ala nabi malayka yëpp itam dañuy maase ànd ak suñu borom di julli ci yonte bi alayhi salaatu wasalaam moo tax suñu borom woonu bëgg noo xéewale ne kaay leen ànd ci julli gi yaa ayyuha alladina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima yonent bi lañ gis muy koo xam ne maanaam fi ne booy dugg ci lislaam boo ko gëmut boo tuddut aw turam fi ne doo doo bokkagul doo bokkagul mukk ma ne ashhadu an laa ilaha illallah kese duggago faw nga teg ci ashhadu anna muhammadan rasulullah loolu sëñ bi lu yéema la lislaam ji diine yonent bi comme suñ mbokki salafé yooyu nga xam dañuy wax ne moom nit ñoo xum rijaalun wa naxnu rijaal maa ñu moom nit la comme nun rek da nga wuute wun dara léegi ginnaaw moom nit la comme nun maanaam te booy dugg ci diina ji faw nga nga tudd aw turam keneen même julli julli gi gën a foor faw ci taaya nga wax ashhadu an laa ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah fi ne bu ñu noddu gis nga noddu loolu amut ci yeneen diine yi bu ñu noddu faw ñu tudd turam ashhadu an laa ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah da nga koy dégg ci noddu moo tax yàlla da ko fonk lool te itam ci alxuraan gis nga fu mu tuddee al yàlla rek war a suula war gis nga ko maanaam bi wàllu topp man yutixi laaha dégg nga man yutixi rasula faqad ataa allah ak wa atiu war rasul mënoon na ngeen topp yàlla rek waaye da ci teg ngeen topp yonente ba tey gëm yàlla ba ci gëm yàlla sax day wax ne ngeen gëm yàlla waaye ngeen gëm yonente bi sallallahu alayhi wa day wax ne innamal muminuuna alladina amanu billahi wa rasulihi ñi gëm dëgg-dëgg mooy ñi gëm yàlla gëm itam rasulihi sallallahu alayhi wa sallam bu dee ci weddi yàlla itam day gis day wax da ci day day tuddaale itam ñu weddi wàlla yonente bi itam ñu weddi yàlla weddi yonente bi kafaru billahi wa bi rasulihi itam da da ba ci jaayante gis nañ dafay lëkkale aw jaayante foofu sax la gën rëy inna alladina yubaayiunaka innama yubaayiuna allah wax ju rëy ngi noonu mooy ñii jaayante yonente bi yàlla ci moom lañuy ñuy jaayanteel mu teg ci ne yadullahi fawqa aydihim li wax ju rëy la mooy maanaam saxaaba yi doon jaayante yadullahi fawqa aydihim loolu neexuta sax tekki kon muy dem rek moom suñu borom boo jàngee alxuraan da ngay gis fonk gi mu ko fonk wax na ne njëggalam ak ak moom yàlla bëgg la da ko aj ci yow nga topp yonente bi alayhi salaam ci jëmm jooju qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhbibkum allahu wa yaghfir lakum dunubakum buñ gisee ci alxuraan itam <clears throat> yonente yi kenn ku ne yàlla dalay woo ci sa tur yow gis nañ mu wax yaa aadam uskun yaa nuuxu bit yaa ibrahim arid ya muusa inni stafaytuk ya isa bna mariam yooyu yëpp gis nañ mu di leen tudd kenn kon da lay woo ci sa tur waaye yonente bi woowu ko benn yoon ci turam ci alxuraan day wax lan ah gis nañ yaa daawuda yooyu yëpp gis nañ ko ci alxuraan waaye moom lan lay wax yaa ayuha rasul bu demee ba di ko woo yaa ayuha rasul lay wax ak yaa ayuha almuzammil yaa ayuha almudathir buy nett nettali nag ba ba war a turu tur yi moom buy nettali loo xam ne tey bokkut ak muy waxanteeg moom loolu dana ko wax muhammadun rasulullah waaye da ci boole yoonu moom ne ne rasulullah sallallahu alayhi wasallam loolu toujours da ko ci boole wa ma muhammadun illa rasul muy dem muy dem rek bu ñu seetloo itam <coughs> bu ñu seetloo itam ñu seetloo itam moom rek lañ gis yàlla giñ ci ak dundam la amruka innahum la fi sakratihim yamahuna mi ngo kon daal kooku mooy yonente bi sallallahu alayhi wa sallama li nga xam ne ah, noonu la ko yàlla fonke nga xam ne moom yéefar yi giñ ko daa weddi weddi giñ ko daa weddi weddi giñ ko daa weddi saa yu ñu ko weddee yàlla ci boobu moo koy moo koy moo koy moo koy tontu moo koy tontu buñ gisee bañ waxee ne shaair ah shaair bañ waxee ne moom ab waykat la xam nga lu ne wax nañ ko yonte bi waykat la waaye suñu borom moo koy tontu wax ne wa ma maa allamnaahu shi'ra maa kii du waykat li wax du way gis nañ bi ko yont bi ko yéefari waxee ne kaahin mooy moom ab njabarkat la bu xaaba la wala yaasu billah gis nañ suñ borom joom moo ko tontul wax ne wala bi qawli kaahin du du du njabar du ba ñu waxee itam ne mooy kii dafa dafa dafa réer dafa jàdd aw yoon dafa sànk yonte joom suñ borom joom moo ko tontul wax ma dalla la bi ñu waxee ne majnuun wala iyaasu billaah mooy mooy xel mee neexut dañu tuddee dof ci nun suñu borom joom moo ko doon wax ne wa ma saaxibukum bi majnuun kii sore nag lool xel xel mu naqari bañ waxee ne itam innama yuallimuhu bashar wax ne li muy wax nii daa am ku koy ku koy jàngal rek ci wet gi sun borom moo leen tontu wax ne lisaanu alladi yulxiduuna ilayhi ajamiyun wa hada lisaanun arabiyun mubin kon yàlla da ko fonk fonkeel goo xam ni dayu bi sax daa mel ne noonu mënuñu koo xam dëgg dëgg keroog bi wax yu gi bi wax yu gi daggee ay fan xam nga njëlbéenu lislaam am diir boo xam ni dafa jekkee gi jibril wàcc wa maanaam ñëwul indil ko benn dara ci alxuraan am diir bu diir bu yàgg boo xam ni alxuraan wàccut ba yéefar yi màkk yi tàmbali di ko wax ne yow kat ne muhammad kat xalaahu rabbuhu mooy yàllaam ji da koo bañ da ko da ko kii ndax ginnaaw moom léegi wàcceetu ci moom dara kookoy moom léegi kon suñu borom daala da wàccee saaru suratu duha wax ko ne ko maa ak rabbuka wa maa qala mooy su sa borom bayiwu la te itam bañu la itam gis nga ci beneen bërëb mu wax ne wallahu yaalamu innaka la rasuluhu mu fet leer ko yàlla xam na ne yow yaay ndawam dégg nga wax na it wax wax wax itam yonente bi ne ko bu dul woon a yow dinaa leen mbugal ñoom ñëpp wa ma kaana allahu li yuazibahum wa anta fii maa li teema mbugal leen ñoom yéefar yeeg ñi wax lu ëpp ci yow mooy nekk gi nga nekk ci seen biir waaw yonente bi it xam ngeen ne da doon ku bari yërmaane yàlla sax am na bis mu yabal jibril alayhi salaam ci xadisul buxaari mu ànd ak malakul jibaal mooy malayka mi yore wàllu montagne yi mala malakul jibaal bi ñëwee dana ko da ko wax ne ko suñu borom ma yabal ne ma loo ma sant tey rek ma def ko xam nga waa Màkka ci aw xur lañ ne moo ñaari montagne tiim leen malayka mi yore montagne bi ne ko bu la neexee ma boole ñaari montagne rek muy seen bàmmeel ñu faax waaye yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci yërmandeem ju ju ju bari ja ne ko wax ne ko loolu ëpp naa def bu leen maasale mukk bu leen suul ndax ñoom xëy na ñi ngi may weddi di wax lu bon ak a def waaye xëy bis mën naa ñëw seeni dooma seeni sët doon ay julit kon kooku mooy rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam gis na ci alxuraan léeg yàlla def li ñuy wax yedd mu def ko ab yonent ñun moom sañu ñoo wax ci baat yi mel noonu ci yonente yi waaye yàlla moom gis nañ al yonente yi ah kenn def ci dara mu wax ko wax joo xam ne dañuy gis mu daal tàmbalee tuub ak a jéggulu dama ci bañ tudd benn yonente ngir ba ba wax jooju daa xaw a day wax waaye gis nañ yonente bi sallallahu alayhi wasallam bu koy wax wax ju deme noonu day jiital ne ko yow moom jéggal naa la ba nopp waaye nag nàngam ji lu tax nga def ko afallahu anka lima azinta lahum dégg nga muy dem rek kon noonu la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam demee dinaay wax itam lu bare bare xëy dëgg nañ ko ba tey mooy yonente bi ñëpp a ko bëgg lépp ko bëgg itam dégg nga loolu li ma waxoon ci njëlbeen gi mooy ma wa ma arsalnaaka illa rahmatan lil aalamiina mooy mbooleem lu dul yàlla rek ci aalamul la dugg ndax alhamdulilahi rabbil aalamiina bu ñu ko waxee mooy rabbil aalamiina mooy lépp lu yàlla moom rek yàlla buuru boole kon lépp lu dul yàlla rek yonente bi yërmande la ci moom moo tax nga gis mbindeef yëpp marché bëgg ko boo amee ku koy weddi wala ku koy bañ wala ku koy sikkal ci doomu aadama lay doon loolu wax naa ko ba tey doomu aadama yi ñoom ñoo gën a dëgër bopp waaw doomu aadama ak ñoom rek ñooy mooy yàlla ci ci dënn bi waaye mbindeef yi nga gis ñoom xalaatuñ sax loolu si li sëñ Muntaxa baax mi wax sama téeméer xel xalaatu ko ñoom seen téeméer xel xalaatu mooy mooy yàlla moo tax ñu gis ñu gis euh, ñu gis mboolem yi yàlla sàkk yi yàlla sàkk niñ ko war maale woon gis nañ ci xadis gis nañ picc yi am picc yi dañ daa ñëw di jàm di ko jàmbat loolu lu yéemu la buñ ko wax léegi sax ay léeb nga ko jàpp mooy mooy nekk na ci jàkkaam am picc ñëw ba jege ko di di def di di di kii rek yonente bi ne waaw ku ku ku tooñ picc mi kenn saxaaba yi ne ko man de ay doomam maa ko jëloon te ma ma ma maa jël kaaf ma mu ne ko loolu kay mu moo tax mu demal jox ko ay doomam yaa ne kon picc yi kon kaana tashtaki nañ lu mel ne till googu yi yaa ne sëñ bi junj na ko ci ay bërëb yu bare bari moom maanaam maanaam benn sàmm boo xam daal jàpp ñenn ñi wax kéwal ñenn ñi wax Euh, kéwél googu laa bëgg a wax ribiya kéwél googu yi nga xam ne sàmm bi da ko jàppoon mu ñëw mu mu jàmbat yonente bi ne ko kii dama jàpp te man dama am ay xale yoo xam ni ay ay doom yu ndaw yoo xam ni maa leen war a nàmpal dégg nga yonente bi ne sàmm bi bàyyi ko boo ko bàyyee moom dana dellusiwaat bàyyi ko mu dem nàmpal xaleem yooyee te dellusiwaat sàmm bi wax ko ne ko man kon far naa ko bàyyi ngir yàlla moom bàyyi naa ko mu dem te loolu xadis boobu booy xaq yi nettali ne ko ci dalaayilu boo ak ñeneen ñu bëree bëri lool bi nga xam ne moo nañu ci def ni muy mahabbatu rasul karim indal abdul xadim yëpp leer nañ ko ba ci euh, lu mel ne tey ni gën a bëri sax xadis yi gën a bëri ci mm, xayawaan yi ni ñu daa jàmbatee ci yonente bi mooy mooy xadisu euh, giléem yi loolu xadis yu bëri root na ci yoo xam ne giléem yoo xam ne ñëw di jàmbat yonente bi sallallahu alayhi wasallam am na giléem goo xam ne euh, yonente bi dafa ñëw ba jege yonte bi wala yonte bi moo demoon ci kër këru kenn ci ansaar yi gis giléem goo xam ne day yuuxu rek ronkoñ gi turu yonente bi ñëw ba jege ko daal ne ku moom giléem gi dégg nga benn waaye ne ko maa ko mu gi de nee na fekk ko giléem daa rëcc ba ñëw ba dajeeg yonente bi sallallahu alayhi wasallam waaye yonente bi ne leen giléem gi de nee na yéen dangeen ngeen ko liggéeyloo sëf ko sëfa sëf ba mu sonn lim leen jural itam ci ay kooy kenn xamul lu yoo xam ne mooy seen bàyyi ci ci seen gétt gi mu dem ba màggat nag ngeen bëgg koo rendi nag hmm. loolu lay loolu lay loolu lay jàmbat ñooña doxe ca jéggal jéggal gidem gi loolu lu bare bare bare bari la gis nañ ci at at mi mujj moom yonte bi sallallahu alayhi wasallam at mu mujj atam mi mujj nga xam ne ci la maanaam mooy xajjatul wadaa bi muy rendi gileem yi xam nga dafa rendi lu toll ne limub limub limub ay ay atam moom la rendi ci gileem ren na ci yaakaar naa lu ëpp lu ëpp ñeent fukk wala juróom fukk waaye saxaaba yi dañoo wax ci xadiisu <coughs> Abu Daawud ak Nasaay ak ñeneen ak ñeneen dañoo wax ne gileem yi ci moom dañoo gis seen baat yi ñëpp di di di jegeeñal baat yi ngir yónte bi rendi rendi leen nga xam ne ña ci des xam nga Seydina Ali moo leen rendi waaye gileem dañoo gis seen baale joom ñu ñëw di ko jegeñal yonent bi alayhi salaam ngir mu rendi leen ndax rasul lay maa rendi la moo leen dàqal xay na keneen rendi leen kon loolu lépp lu am la ñun yooyu nag daan ko dootuñu ko waxtaanee moo tax day mujj mel ne lépp gis nañ till gi moom sëñ Tuubaa tudd maanaam wax na ko ba tey ak mbëtt mi mbëtt mi sëñ bi wax ne wal wa dab wa dabbu kallamahu sëñ Tuubaa wax na doon waaw yow mën bi kilmaat maanaam mbëtt mi waa ji da koo rey ba fees ko dégg nga <clears throat> bi mu ñëwee moom sàmm bu arab bi wax yonente bi ne ko mbëtt mii de bu la bu la bu gëmee man ma gëm la yonente bi wax mbëtt mi ne ko yaa dabb man ana maay kan mu ne ko anta rasulu rabbil alamin yow yow yaay ki yàlla yoon yónni till gi itam noonu yooyu yëpp sëñ bi nettali na ko mag ñi daanañ ko nettali muy lu wér itam yàlla na yàlla defal tawféex yi saxaaba yi itam noonu lañ gëm noonu lañ bëggoon yonte bi sallallahu alayhi wa sallam waaye loolu bu ñu ko toppee day gën a day gën a gudd yal yàlla defal tawféex yi ñu mën koo màggal ci anam ga neex yàlla te dëppoo ngërëmul sëriñ bi ci daraje sëriñ bi yal na yàlla defal tawféex yi daal lépp luñ ci diggee nu amee ko nan ko diggee yal na yàlla tawféexal na ci guddi gi nu bokk ci ñi gën a bëgg rasul sallallahu alayhi wa sallam ci ci daraje Sëriñ Tuubaa mboolem yi ci def ni ma ko waxoon ci njëlbéen gi rek noonu laa koy jeexale mooy dañ koy def ngir sante ko yàlla ci yónni gi mu yónni yónnante bi sallallahu alayhi wa ci bis bi noo ngi ñaan yàlla mu nongul lu cant googu te di ko sant bu wér itam ci mboolem li defal sëriñ bi li defal sëriñ bi ci ay xéewal ndax sëñ ñu daan wax ngeen sant li ma ci yàlla ca màggal ga waaye loolu at mi yëpp lañ koy def incha allah di ko sant la yàlla ci mboolem li ko yàlla xéwale di sant yàlla itam ci mboolem lim nu defal ci ay xéwal yoo xam ni ah, mëne su ko lim ci dara ji sëñ Tuubaa boo amee benn laaj wala ñaar ñu jeexale ko wala nu def ñaan rek dana guddi na wala waxtu jëpp Fausse le 28. Fausse def ñaan rek bu fekkee amul laaj ñu def ñaan. xanaa ñi doon jàng te sëñ te jaxate ana jaxate sëñ jaxate ngeen jàngaat